yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxtaan na ak saxaabam saxaabi yépp xas nañ fas yéene def jom taxaw nañ dëgër yonente bi bég na dëkk daat ne xayya ila badrin yonente bi nag déparé na béréb boobu di safraan daal di sóobu nag dem ci béréb bu ñu wax sanaaya waaye daañu ko waxit al asafiran ba mu fa jógee daal di wàcc nag dem ci dëkk bu ñuy wax dabba daal di bàyyi béréb bu ñuy wax xannaan ci ndeyjooram daldi di ci wenn tund wu mag woo xam ne beeñ la mu daal taxaw foofu nag tund wi soreewul ak badar foofu mu toog xam nga yonent bi booba yónni woon na ko ñu wax bas bas ibnu amrin ak adi ibnu abi zaxba muy ñaar ñi nga xam ne yonent bi da leen a yónni woon ñu dem yëddu ji abu sufiyaan wala aba sufiyaan euh, léegi nag ñoom ñaar ba ñu ñëwee nag ñëw ba agsi badar nag ñoom ñoom ñu ngi badar léegi bi ñu ñëwee ñoom ñaari ñaar ñoo ñu yonent bi yónni pour mu ñu dem yëddu ji Abu Sufyaan léegi nag ñoom bu ñu ñëwee dañoo daal di yësal seen i gëléem ñoom ñaar ci wetu ndox menum ndox jël seen mbalka nag commencé di wëgg seeni jur seen gëléem fekk na booba itam Abu Sufyaan yónni na ku ñu wax Majdi ibnu Amrin al-Juhani nekk yow itam demal nga xoolal ma yoon yi ba xam yoon wi lew na wala déet moom itam ñoom ñu daje ak ñaar ñi yonent bi ni ci teenu Badar waaye bi ñu ñëwee e, bas bas ak adiyin dañ fa fekk ñaari jigéen ñoo xam kenn ki mi ngi naan moroom ji lebal ma nangam bu subaa wala gannaaw suba Abu Sufyaan di njëggum waa Quraysh mi daañu ñëw su ma leen liggéeyalee buñ ma fayee ma fay la fekk bas-bas ak àddi yin ñi ngi dégg loolu mooy ndaw yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon xam nañ ne ñaari fan njëg mi dina agsi booba it Majdi ibnu Amrin nga xam ne Abu Sufyaan aka yónni daal nekk wax nga wax ngeen dëgg ci la ñu leen a xam ne ah kon nag Abu Sufyaan fii benn fan wala ñaari fan dana agsi ñu daal di war seeni gëléem nag ñëw fekk yonent bi daal di koy wax liñ dégg ci ñaari xale yu jigéen yooyu waaye Abu Sufyaan itam ku borom xel mu gudd la ku ragal la waaye xel mi gudd na mu daal taxawal njëgg ma daal ne leen dem man bàyyi leen ma jiitu leen lu ëpp ay kilomètres xool yoon yi ba xam leew na wala déet bi mu ñëwee ba fii teen bi di Badar fekk fii ki mu yebaloon euh, di Majdi ibnu Amrin mu nekk ndax gis nga fi loo fi ragalam déet mu ne ko déedéet gisuma ah man de gisuma lu ma ragal waaye gisoon naa ñaari ñaar daal ñoo xam ne fële lañ yësaloon seen gëléem waxuma ñoom ñoom it man toog nañ fa biir ba yàgg ñuy dem Abu Sufyaan daal ñëw nag fi gëléem yi fi ñu yësaloon seen gëléem mu ñëw jël nefara gëléem yi di ko xar di xool waaye mu xar ba yàgg mu gis benn boo xam ne tàndarma moo nekk ci biir mu ne ah, gëléem yi dundee tàndarma day gëléem yi madina waa madina ñoom ñooy xonti seen gëléem tàndarma kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam soriwul fii daal di wàññiku nag wàññiku na delluwaat na ci njëg ma fél na njëg ma léegi bàyyi nañ yoon wi waroon jaar nag jaari nañ ca tefes ga nga xame ne diggante tefes gi ak badar téeméeri kilomètre ak juróom-benn fukk la xool ni mu teggee na mu sore foofee nag la nekkoon nag dafay yónni ku ñu wax dam-dam euh, xam nga Abu Sufyaan bi mu xoolee neefare gilem yi fekk ci tàndarma mu ne waa Madina ñoom ñooy xonti seen i gëléem tàndarma kon nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam sa réewul fii moom kat daa nar a nangu sunu njëgg mi mu daal di nag dawal fasam dem ci njëgg mën a jàdd leen jàdd mu mu jaarale mu daal leen jaarale ci tefes ga te xam nga diggante tefes gi ak Badar téeméeri kilomètre la ak juróom-benn fukk léegi nag teggi na yerente baa koy moom teggi na dem na ba mu demee nag ba muy teggi nag dafa woo benn waay bu ñuy wax dam-dam ibnu amrin alxifaari daal di koy fay xaalis daal di koy yónni makka ne boo demee nga ne waa màkka ne ka abu sufyaan nee na lu ñuy yeex-yeex muhammad dana leen dogaale dana leen rey dana jël seen marchandise ak seen alal ya te kon bu boobaa daañu xiif bay lekk yi xaj waaye daañu xiif itam bay lekk yi weteñ lu fekk loola nag ku ñu wax atikatu bintu abdul muttalib dafa géntoon gént gu ko yéem mu nettali ka abbas magam atika moo doon bàjjanu yonente bi mu nettali ka abbas ne ko bu ko wax kenn waaye lan la Atika gént la jëkk dam-dam di ak si ñetti fan ci la Atika ñëw ci magam Abbas ibnu Abdul Muttalib ne ko yow sama mag man day gént naa gént goo xam ne tiitloo na ma waaye ragalloo na ma te tiit naa ne jàpp naa ne aw ay ak musiba mu war a wàcc ci sa bokk yi di waa màkk day maa ngi séentu waaye nag na nga nëbb mbir mi bu ko waxante kenn mën ak yow abbas ne ko gént mu nekk ko dama gént benn gawarkat daw dugg ci biir màkk mi ngi war gëléem ba mu ñëwee ba ci xuru màkkat moo mu yuuxu génn yuuxu ci kàddu gu kawe mu ne ay yéen waa Makka dajaloo leen ay yéen yi nga xam ne ay warkat ngeen dajaloo ngeen dajaloo leen seen nërmeeluwaay ak seen toroxtaange fii ñetti fan la nee na ma gis ci gént gi baa ji waxee loolu nit ñi wër ko mu waaxu ba dugg ci biir kaaba gi biir jàkka ji nit ñaa ngi topp muy wax kàdd googu dem ci kaaba gi yuxuwat ne yen yeen yen yeen ñi nga xane ay ay kat ngeen seen musiba day yagut fek ñetti fan la waral gëleemam daw ba ca jabalu abi xubays yuxuwat ba ñepp di ka deg mu ne yeen yi nga xane ay ay warkat ngeen seen nga yagut fek ñetti fan da ngeen am lu leen naqari daal di wàcc nag jël benn doj sànni ci kaw montagne bi sanni ko doj bi daanu ci saaroo mu ne doj woowu nag bi mu saaroo kër gu nekk ci biir makka ak néeg bu ci nekk fellit dugg na ca mu ne loolu la gis ci gént gi naa gi gént daal xam naa ne musiba mu nar a dal waa makka la léegi nag mu ne bu ko wax kenn abbas ibnu abdul muttalib daal di génn daal di dajeek walid ibnu abata ibnu rabiata doon xaritam mu daal di koy nett gént gi ne ko waaye na nga ko nëbb walid itam daal di koy nett li bàyyam utbata bàyyam utbata nett li ka jaahil mbir ma daal siiw nag waa Makka yépp nag daal di siiw ñu naa ah, Atika géntam gi baaxut Atika géntam gi baaxut waaye Abbas ibnu Abdul Mutalib ñëw di wër Kaaba gi aboo jaxlin mi ngi toog ànd ak mbooloo mi toog di waxtaan daat ne ko abbas boo wëree kaaba gi ba pare nga ñëw fii ñu waxtaan ba abbas wëree pare ñëw aboo jaxil ne ko yéen giirub ba abdul muttalib lan moo leen dal démb am na as ngóor su fi doon woote na yonent la tey jii jigéen mooy woote yonente moom daal nee na daal gént gént goo xam ne moom daal ay musiba ci nekk yéen daal kon góor ñi dañuy fen jigéen ñi fen ah daal ne sa nekk sa jigéen bi di de sa jigéen bi di aatika àppal nañu ñetti fan waaye ñu ngi koy xaar feeg ñetti fan su fekkee le mu gént du dëgg daañu bind wax ne xeet yi arab yi am yéen waa kër Abdul Muttalib yéen ci dàqa fen yéen waa giir Banu Haasim waaye nag da nga jàpp ne man weddi naa leen dal ci kawam dal bu metti waaye Abbas bi mu demee ci kër gi jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci giir Abdul Muttalib ne ko Abbas da ragal li nga xam ne moom la Abu Jahil di wax di ko askanale ci giir Abdou Muttalib ak Banu Hashim ta ngay góor te fajoo ko Abbas xol ba tàng jër mu ne ah, bàyyi leen noonu bu subaa bu ma demee ci kaaba gi Abbas ibnu Abdul Muttalib nee na bi nga xam ne sama jigéen yi nga xam ne dañoo bokk bàyyi xas nañ ma ne ma aboo jaaxlin de dafa xas ngir banu hashim ngay góor te fajoo ko bu bu doon ñun jigéen de daañu ko faj amoo fayda nee na loola nag merloom ne sama xol bi daal tàng jër manaax boo légee day lii ma faat ci abo jaahil dinaa ko fayu boo légee dinaa fàttaliwaat mbir mi ba mu tontu rekk ma dóor ko nee na bi nga xamee ne ñetteelu fan ci gént gi Aatika gént mën naa demaat ci Kaaba ga def sama tawaaf su ma fa fekkee aboo Jaahil dina ko fàttali mbir mi boo waxaatee lu jëm ci giir Banu Haashim dinaa dal ci kawam nee na ma ñëw di def tawaaf ma defee tawaaf ba ba pare seen Abu ma jubal ko ba ma ñëwee maa ngi koy fàttali mbir mi di ko saaga waaye ndekete moom dégg na kàdd goo xam ne man dégguma ko ma nga maa ngi waaxu jëm si ci moom ma ngay daw moom di dem ndekete am na kàddu gum dégg te dégguma ko ndekete dam-dam ibnu amrin alxifaari bi Abu Sufyaan yónni woon moo agsi ba mu ñëwee dafa dagg noppi gëléem gi mu waroon ngir bëgg a mën a nettali li ko Abu Sufyaan yónni dagg na noppi gëléem gi daldi benn yére yim soloon xotti baat mbubbam ma nga naan alxaws alxaws yaa maxshara qurays ijmao adadan waafiran min rijaalikum min shubbaanikum li anna muhammadan wa asaabahu yuriduuna ictiraada amwaalina fi tariq sham boobu mooy benn riwaaya bi mi ngi naan wallooy wallooy yéen waa màkk góor ak jigéen mag ak ndaw génn leen dajale leen mbooloo ndax Muhammad ak i saxaabaam ña jóg dogaale sunu njëgg ma te bu ñu ko jëlee rek dangeen ngeen ñàkk te ma ngi ci yoonu Saam wa nag parce que yéene nangu am na beneen riwaaye bu wax ne dafa wax ne yaa machara Qurays alatiima alatiima amwaalukum ma abi Sufyaan qad arada muhammadun fi ashabihi la ara an tudrika an tadrukuha al qaws al qaws manan e yen wa quraish li de mbej la am mbej nak borom kay fayal ba fam sen ala lag ak abu sufyan Muhammad, gar nako kar nako moki sahabam te yakar na ñom duñ meuna recc te buñ reccul a dañu dem ba buñ nongo alal ngeen xif bay lek ay xajj dangeen ngeen xiif bay lekki weteñ loolu nag abu sufi abu jahil daal ne bërit ne ko muhammad wax saabahu ne ko dam-dam loo wax nga ne muhammad ak saabaam ñoom ñoo kar sunu njëg mu ne ko waaw mu ne ko laala muhammad majnun xanaa muhammad dafa dof ñu daal di nag jóg nag kenn ku ci nekk daw nag dem sa kër commencé génnee sa mbubb koŋ commencé génnee sa jaase sa ngànnaay génne say fas fas yéene dem daje jeeg Muhammad sallallahu alayhi wa waaye keroog bis la boo xam ne kenn ku ci nekk génn nga daal waat ne daal daañu jëflanteeg Muhammad jëflante boo xam ne dana xam ne dootu ñemeeti di gar njëkk ñoom ñëpp nag ña ngay xasaka dajale alal ku nek am nga la nga am genné nga ko pour financer pour ñu mëna a dem xeexi ah légui nak wa Maka ngay wacc nak pour dem gasandu ci Abu sufyan waye dem daje Muhammad mohammed xex ak moom ñoom lolu moy seen yitte léegi waa Màkka yëfari Màkka yi ña fas yene nak dem ngir xeexeek Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñu nga jóg dajale seeni ngànnaay dajale seeni alal kenn ku ci nekk génne nga alal bañ génnee alal ji bare bare bari ngir rek wara a xeex yonente bi gañe ko ñu ngi amoon junni góor ak ñetti téeméer am na ci góor ñooñu juróom benni téeméeri nit yoo xam ne am nañ ay mbubbi koŋ am na ci téeméeri yoo xam ne ñu ngi war ay fas yi naaru góor am na ci ñuy dox ñoo xam ñoom am nañuy mbubbi koŋ waaye tam am nañ juróom ñaari téeméeri gëléem àndoon nañ ak i jaam yoo xam ñooy tëgg ndënd ya di woy ay way yoo xam ne ay xastala yu jëm ci jullit ñi ak yonente bi waaye itam ñu ngay wane ak rëy ak tiitaru ñu ngay génn di wane ne am nañ doole bari nañ mbooloo am nañ drapeau bu ñu yor jox nañ ko Saïb ibnu Yazid muy maamu juróomeelu imam Shafii gannaaw gi nag la tuub waaye ñoom itam am nañ fukk ak ñaar ci ay jaam yoo xam ne ñoom ñooy leel nit ñi di leen jox ñam di leen jox sàngara di leen jox ndox di leen Euh, boo bokkut ak ñuy bu nekk daañu rey fukki gëléem abu jahil moo leen jiite ak otbatu ibnu rabiata ak shaybatu ibnu rabiata ak hakim ibnu hisam abbas ibnu abdulmutalib abul buxtari zamat ibnu aswad ak abi obay ibnu xalaf ak umayta ibnu xalaf ak nadar ibnu xaaris ak nabiix ak manbix muy ñaari doom xajaaj ñii kat la alquran waxoon ne in alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yusaddu pour dem ñu nekkoon junni ak ñett waaye nag gannaaw gi matatuñ ko li tax matuñu ko dañoo àndoon ak genn giir gu naan banu bakri ñoom bokkoon nañ ca xeex ba bëggoon nañu dem waaye bi Abu Sufyaan jàddee jaari tefes bi mu ñëwee màkk daal yi woo yónnee ne nañ wax Abu Jaahil nekk nañ wàññi ndax njëg mi rëcc na dugg nañ màkk ci jàmm Abu Jaahil ne mukk ñoom duñu wàññiku dañuy dem rekk bu ñu demee raatale Muhammad ak waa Madina duma leen duma yoo xam ne arab yi duñ ko fàtte mu ne dinaa fa def ñett dina naan sàngara dina jigéen ñi daañu ma woy ma duma samay noon di Muhammad ak ñi ma àndal door a wàññiku ngir ba Bakri nekk ñun nag tiitar boobu taxuñoo jóg ñun daal sunu alal la yonent bi doon dogaale alal ji mucc na ñun dematuñ ñoom daal di wàññeeku ñetti téeméer wàññeeku ci ñoom moom mu des junni ci ay mbooloo Abu Lahab nag demut moom gént gi nga xam ne Atika gént na ko moo tax mu xam ne musiba dana am am na benn waay boo xam ne moom danoon kàrt ak moom ba gañe lu bari muy Aas ibnu Hisham ibnu Muqirata mu gañe ko lu bari muy bor bu bari ci moom mu ne ko léegi da dem badar wuutuma fa te ma baal la li ma la gañe woon loolu la ko Abu Lahab def kon nag kàngami màkk yépp Abu Lahab rek moo demut ak Abu Sufyaan mi nga xam ne moo jiite woon njëgg mi xoolal léegi màkk kon junni lañ juróom ñaari téeméeri gëléem juróom benni téeméeri mbubbi koŋ waye témèr ci mbubbi koŋ yu manam manam ñi nga xam ñoy ñi ñiy dox waaye téeméeri fas waye junni xeexkat ak jambar yaronte bi alayhi salatu wassalam lim bi mu am ñetti témèr ak fukk ak ñet mune ñet ñet témèr fukk ak ñet yoyu yetti fas lañu am juroom ñaar fukki gelem ñi ses ñepp dañuy dox dañuy liru yonent bi alayhi salaatu waaye jom ja fiddu ak taxawaay ba ma ngay dem dékku ji junni xam naa foofu la ñuy yemale kàddu yi majmua Maam Mor Ngoné gi ñu ngi yamale foofu kàddu yi ba beneen yoon ñu continuer ci xaswatu badrin yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp sa def ko ci yéen